fonction des situations qui évoluent et de contingences en face de toi. noonu nga mën a demee mais munoo ne fii rek laay taxaw. ku taxaw ci benn barab doo dem ndox sax nee nañ bu kulewul amul njariñ. Mhm. tey tey tey si suba dama dama xëy jël euh, journal bi wala wala Walf Quotidien moom mu ne Sonko critique Blair euh, Blair et Diomaye le reçoit. voici le titre du journal bi nga xam ne mu Walf Quotidien tey tey indi loolu bu mel ni. Euh, attends Sonko critiqué attends waaw Sonko critique ou critiqué critiqué waaw mais ñoom critique lañ bind waaw ah donc euh, déjà euh, euh, xam nga loolu déjà mu nga kooku kenn du ko wax da nga ne Sonko critiqué Blair mm-hmm. Diomaye le reçoit loolu mooy français bu correct mhm. waaw mais ñoom ni ñuy bindee sax mhm. déjà am nañ waaw waaw le passé présent de Pastef waaw waaw mu ngoog Sonko ba muy critique Blair mais peut-être booba am na beneen objectif bu boo xam ni bii moo taxoon mu koy critiquer mhm. léegi critique yooyu léegi weesu nañ temps boobu xañ na baleer euh, dégg sonk Sonko booba nekkul pouvoir léegi nekk na pouvoir xam na ne les réalités du pouvoir et les réalités dans l'opposition mhm. bokkul mhm. Mhm. bokkul c'est tout bokkut nit day évoluer addina day évoluer munoo taxaw ci benn place c'est pas possible léegi nag baler ñëw na dana waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom la bëgg ci baleer ak li baleer yor mm-hmm. te moom mu bëgg ko mm-hmm. leneen lu baleer yor te bëgg ko mu bàyyi ko Blair Blair dem mm-hmm. et puis c'est tout ana problème bi oui mais ma la dégloo par rapport ak sànq yaa ngi tudd mbiru valeur waaw ñu gis ne le président de la République Diomaye mu ngi koy incarner avec l'humilité bi nga xam ne suñu borom may na ko tey benn taxawaay la war a am si genre nit ñi mel noonu ñu jàpp ne euh, dañuy jege lool ñi nga xam ne mooy état yi nga xam ne waruñu woon liggéey ak ñoom ñenn ñi di ko wax suñ coopération état bu ne lañ war a coopérer. Mhm. amuñ benn état bu ñuy exclure coopération xam nga luy coopération ci tubaab. Mhm. mooy waxtaan ba déggoo ci li ngeen waxtaan. ça dépend d'abord lu ngeen di waxtaan ça dépend bu ngeen dégg déggoo aussi les termes yi ngeen déggoo ak waa ji li mu lay indil. Mhm. état yi. c'est des états comme le Sénégal te ñoo ñu ëpp doole te ñoom ñoo yor Blair xam nga fu loxoom jote mhm. Blair loxoom jote na fu ne àddina bi. maanaam xaalis ak yooyu. ak lu ma bu dee xaalis da ngay xam ne ñooñu ñii ñu formé woon seen i doom ak seeni sët ak ñi ñu formé woon bi ñu nekkee ci pouvoir bi ñooñu ñoo yor institut international. institut internationaux yi ñoo ko yor ñoo yor xaalisu àddina bi ñoo yor lépp donc boo bañee kii ne du ma traité ak sa baay wala sa maam mais waru dem ca kële. Mhm. loolu mooy problème bi. Mhm. parce que baleer lu mu doon baleer bu dee góor jigéen suñ yoon newu ci. baleer bu dee defendre ay góor jigéen am na ci droit suñu yoon nekku ci ñun. lool yi muy defendre nga xam ne c'est contraire à nos valeurs na ko défendre mais bu mu nu ko imposer bu buñ ci wax ak moom di ci d'accord ak moom ci dara léegi nag bu fekkee aide au développement lay indi mm. wala dimbali ñu dans un domaine ou dans un autre kooku mën nañu koo nangu mm-hmm. ndax nag ñoo ñi ngay gisit mën nañoo yor seen bonuk bopp mais bon gi it mën nañ ko yor ba noppi am yërmande ci africain ñoom lay considérer daal waaw mm. anglais yi ku ne xam ne ne anglais yi mm-hmm. bokkuñu ak français yi niñ doon coloniser seeni réew mm. la la preuve les pays les anciennes colonies mm. anglaises sont plus développées que les pays sont plus développées et plus équilibré dans tous les domaines que les anciennes colonies françaises mm. donc mën ngaa traité ak ñoom mm-hmm. donc donc warul soo woon sax dem nekk benn débat buy atteindre mais yow ñii débat yi rek ñii koy ñi koy agité ñenn la l'opposition bees bi <laughs> opposition bees bi xamatuñ lu ñuy wax ils sont désarçonnés ñi ngi leen di woo ne leen lii yéen ko fi defoon lii yéen ko fi defoon te ñoom koo ci woo mm. xool la mu defoon daanaka da nga koy tëgg ci kaso bi. Mm-hmm. donc ñoom bu ñu amee lu mel noonu. Mm-hmm. tëb daanu ci mais Sénégal yi du fu ñu kenn du leen topp ci loolu. Mm-hmm. nit ñi am nañ leneen gumba am na leneen lu lul tëb ay kàmb. nañ ñu bàyyi ci affaire yooyu. jërëjëf euh, ñu jàll si euh, deuxième point bi euh, bu première partie ba tey si waxtaan bi ñu seex ak yow parce que mu am solo lool si jamono ji nga xam ne Sénégal ñu ngi tend vers une souveraineté ñuy wax wàllu bay beeg càmm jekk lu ni mel Alioune Tine mu am kàddu mu ne on a l'impression qu'il se met en en place petit à petit un état pastéfien ñu bëri xamuñu euh, li nu mel kàddu yooyu lan lay lan lay lan lay wundu si si si jamono jii nii. Alioune ah, Tine mhm. sama xarit la. Mhm. yàgg nañ. Mhm. ñoo jàngandoo moom ak moom lycée Gaston Berger. on se connaît depuis cinquante ans ak ay waxam. la tax mu wax ko moo ko xam bëgguma koy critiquer publiquement mhm. mais bu buñ tasee woon dana am lu ma ko wax mhm. mais état pastefien mooy lan mooy état boo xam ne bii ñii def nañ élection mhm. gagné nañ boo gañee ña nga xam ne ñoom nga gagné te ñu nekkoon au cœur de l'administration mais da leen simpi teg fa ñoo xam ne yi yaa ngi ñoo ma bokkoon projet ñi nga bokkaloon projet bi nag mais gagner ensemble gouverner ensemble. ñi nga méngóol ak gëm mooy loolu ñoo gëm projet bi ñoo ko bind ñoo ko élaboré soumettre ko Sénégalais yi Sénégalais accepter le projet à cinquante quatre virgule vingt huit pour cent. Mhm. loo bëgg mhm. nga ne ñukk foofa ñoo ñii ñu tëjoon kaso ñu xam projet bi bind ko Sénégalais yi validé ko nga ne leen non da ngeen di toog ñeneen la ñuy jël non man je ne suis pas d' accord. Mhm. te état Pastef ñaan ñaana fi ne tu prends le gouvernement. muy vingt cinq ministres. ministre ak cinq secrétaires d'État muy trente personnes mhm. ñu ku ci nekk un pastefien marqué ba amu ci marqué nga xam ni yow xamoon nga ko comme pastefien muy def ay barricades di mëq poudre di mëq ay grenades bariwu ci waaw des technocrates waaw c'est des intellectuels de haut niveau des technocrates koo ci gis domaine ba mu nekk def na ay preuves preuve am soog a ñëw. Mhm. ñu def ko ministe kooku moom ñemewuñ ci woon wax dara. Mhm. léegi état pastefien mooy lan DG yi ñuy dindi. di def yeneen DG. Mhm. mais c'est la chose la plus normale qui soit. ñi ñu def DG. kan moo ci mënta nekk DG Macky Sall ñan la daa def DG. ñi Macky Sall kan la daa def DG. ku Macky Sall mës a def DG dala naan je nomme mais na nga dem politique yi. Mhm. buñ la gagné ma dindi la. Mhm. ñooñu aussi étaient des DG euh, euh, de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ku nekkutoon Benno Bokk Yaakaar duñ la def DG. et pourtant il y a eu un état plus marqué de Benno Bokk Yaakaar dans tous les domaines bokkut ministres yi Bokk Yaakaar nga dem DG yi Benno Bokk Yaakaar. ag dage yi ñëpp Benno Bokk Yaakaar la c'est pas le cas actuellement ici. est-ce que nekkul loolu lay maanaam day day day day ñaxtu rek pour pour pour pour ñu bàyyi xel. non ëllëg. ba tey parce que gis nañ ne ëllëg tamit di dimanche. ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko war na recevoir ñi nga xam ne moom mooy euh, jeunesse patriotique. Mm-hmm. Euh, bu Sénégal waaye mais Ousmane Sonko. est le secrétaire général de PASTEF. Mm-hmm. war na recevoir parti di waxtaan ak ñoom du diisoo ak ñoom waa parti bi ñoo nekk sur le champ politique. di def le combat politique war na war na leen a recevoir ñun temps wu Senghor mhm. ak Wade yëpp bu ñëwee dañ daa recevoir seeni militant di leen wax li ñuy politique lan la fan lañ jëm lan lañ bëgg ak surtout di leen expliquer. Mhm. la li ñuy def lan la pour ñu mën a face faire face à leurs adversaires ça mooy démocratie démocratie mooy le verdict des urnes verdict des urnes na boo ko bëggee am il faut nga am des militants sérieux qui sont bien formés la formation des militants passe par l'information que le chef leur fournit loo mm. bëgg la pays yëpp noonu la man je ma rappelle en France il y avait euh, qui l'été xawma lan des des des Giscardiens mm-hmm. l'université des Giscardiens temps au PS il y avait l'été des des jeunes socialistes temps au PDS noonu la woon pourquoi chaque parti di def permanence. c'est important pour permanence bi loolu la daa jëriñ. Mhm. militant bu bëgg information boo fa demee ñu informer la fa la ñuy defee seen i congrès ak seen i réunion le chef il vient en personne. Mhm. def discours devant les militants. mënoo mhm. ci dara. boo ko defoon militants yi ils sont désarmés te duñ la mën a défendre politiquement. Mhm. te buñ la défendre politiquement expliquer son choix désarçonner opposition booy dem élection ñu baatal la. Mhm. ña nga baataloon dellusi. te jërëjëf euh, lu am na solo donc Aliou Tine euh, gi par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy mbir mu ne Ousmane mu ne Diomaye Faye à une dette politique ba tey si ay kàddoom que point bu mu dafa doon point bu sensible ñu bëri ñu ngi ñu ngi koy jeter. Euh, des pics mu ne Diomaye a une dette politique euh, et son premier ministre Sonko qui a une euh, surcharge de de légitimité. xam nga ñoom xam nga ñooñu yëpp ay ay mots yooyu jonglé la. di jël ay mots di jonglé ñoom bi ñuy dem élection liñ ñu jaayoon. Mm-hmm. Diomaye mooy Sonko Sonko mooy. Diomaye duo lañ nu jaayoon. Mm-hmm. cependant les textes de la constitution jaayu ñu nu duo. xam nga constitution bi waxul duo mhm. dane Diomaye est le président de la République élu au suffrage universel avec cinquante quatre virgule cinquante vingt pour cent boo jëlee loolu Sonko est effacé mhm. mais ku ne xam ne ne Sonko moom moo fait c'est lui qui a fait élire Diomaye ndax moo dem ci terrain bi mu xeex bi moo ko commencé depuis deux mille seize ou deux mille quinze mhm. commencé ko gars yi ñëw ñii xeex yàlla def na les circonstances constance fait que Sonko ne pas candidat parce que juridiquement il pouvait pas être candidat Diomaye mooy candidat Sonko yor ko naan Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko ba duo bi gars yi paquet bi la gars yi élire mais nag paquet bi constitution nangu ko mhm. ana diwu légitimité ak frustration xam nga nit ñi du ñu bàyyi weer ci benn pan foo leen gis surtout opposition bi seen objectif yépp mooy fexe ba jaxase Sonko ak Jomaay. seen taxawaay ñoom ñaar. seen taxawaay ñoom ñaar amul benn problème lan la war doon jamono jii nii. taxawaay bi le premier ministre boo seetee constitution bi defe naa la constitution donne des prérogatives au premier ministre comme quoi mooy yor euh, gouvernement bi ak yooyu. mais ñoom ñaar amul lenn loo xam ne lii kenn war na koo def ci ñoom ñaar te waxtoon waxtaanoo. ki ci des. Sonko. balaa def dara. il faut waxtaan ceeg Diomaye ba Diomaye validi ko Diomaye balaa def dara waxtaan ceeg conko est-ce que Sonko dana ko valider wala du ko valider là c'est la question xawma ci dara. Mm-hmm. ndax décret bi moom Diomaye mooy signé. Mm-hmm. donc bu signé ñoom ñaar waxtaan nañ te li ma wóor waruñoo mën a bañ a waxtaan. Mm-hmm. waruñoo mën a bañ a waxtaan ndax dio bi moom lañ élire élection bi duo lañ élire de fait. mais constitution bi nag kenn le reconnaître comme président qui prend les grandes décisions qui noom aux emplois militaires et civils loolu lañ def mhm. waaye nag xam naa ne mhm. te li ma la bëgg a wax mhm. bo bu yoon teggi wutub dëkk gaa yi fi ne doon luubal ko sàcc aka def ay histoire nekk la nouvelle opposition <laughs> Sonko leen gën a xam junni yoon jomaay les stratégies waaw Sonko moo leen gën a xam jomaay mm. ndax Sonko moo nekkoon di mbëkkanteeg ñoom mm. ñu koy tëj di ko saaga di ko dóor jomaay à la dernière minute lañ ko jàpp mm-hmm. keroog ba ñuy jàkk jomaay maa ngi nekk en fas maa ngi nekk en face muy boori timis mm-hmm. bi ñu koy jàpp mm-hmm. boori timis lañ jàpp jomaay devant moi oh. oto bi gaare ñiy karkar naan na fii la fii la fekk ko ci bureau yi jàpp ko parce qu'il avait écrit un texte en ans la clochardisation de la justice moo boobu lañ ko jàppe benn mot mhm. clochardisation de la justice loolu lañ ko jàppee def nga ni loolu it kan dana ci jàpp nit pendant onze jours mhm. onze mois mhm. yëfi caaxaan yooyu léegi nag def nañ seenu caay-caay ba mu law ne sawum der ba agsi ci ñoom léegi nag évincé nañ leen képp ku ci sàccoon ñi nga lay topp léegi ñuy utiliser des subterfuges pour emmerder nit ñi naan def na nii def na nii bëgg a boole Jonko Jomaay ak Sonko je crois que ça passera pas et je dis à Sonko ak Jomaay mhm. lépp lu mën a xew dee leen def tout le temps ngeen di waxtaan seen diisoo mhm. ndax sëñ Fallou doon a wax ku dul diisoo da nga mas a diis ci barab mhm. Cheikh Abdoulaat mas naa wax ne saa bu ma juumee ñu bari juum mm. ndax du ma jël benn décision boo xam ne bii maanaam diisoowu ma te moo nekkoon xalif général des mourides xalif général des mourides mooy laan koo xam ne kii loo wax murid yi duñ ci teg baat ndax may nañ la ko mais du tee nga diisoo donc je dis à Sonko ak Diomaye mm-hmm. lépp lu mën a xam nañ diisoo rumeur bu am nañ ko faxee seet ministre concerné bu mën a doon nga dem ci plateau yi explique ko affaire endettement bi mm-hmm. ministre des finances la non la elle est très importante elle doit être claire et limpide pour nit ñi xam ko ndax gars yi liñ fi bëgg a tabax ak fenn yi ñuy def communiquer nit ñi donc moo ko mën a dindi tu prends le président des Amériques des États-Unis tous les jours il parle mmh. Macron tous les jours il parle le premier ministre it euh, euh, qui comment il s'appelle espagnol surtout euh, euh, waa ji nekk mm-hmm. kii Catalogne kii comment il s'appelle fi Barcelone nekk am am na nu ñu tudd ñoo mais dañuy wax politique wax moo ko yor il faut ngay wax expliquer parce que rumeur bi boo ko bàyyee gars yi di ko alimenter ay fen di ko alimenter ay fen mm. dana dem ba àgg foo xam ne fii dootoo ko mën a détruire ndax fen wu yàgg day nuroo dëgg mm-hmm. dëgg nag mooy mujj mais balaa mujj man ma arrêté ko dem expliquer. donc la communication est très importante si état bi nga xam ne tey euh, bëgg nañ dindi sénégalais si guute bi nga xam ne si lañ nekkoon sànq yaa ngi koy wax say say mbir.